asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu yi ñu ñëwaat ak yéen ci waxtaan wu gàtt rekk jëm ci réew mi ñu bokk ak diine ji ñu bokk ak valeur yi ñu bokk di sant yàlla suñu boroom tabaraka wa mi ñu may ñu dëgmal élection yi dugg ci campagne bi génn ci campagne bi ñëw démb dimanche sénégalais yi génn voté ñu dem ba ca ngoon sa résultat yi génn donte am na fi nag ay jaar-jaar yu tiis ndax am na lu fi xewoon ci ndar giseen ngeen ko am yi xew ci yeneeni bërëb yoo xam ni yii wax dëgg yàlla xajul ci suñu biir xajul ci suñu biir en tant que jullit en tant que catholique en tant que juif mooy ñu gëm yàlla gëm ne yowmal qiyaamate am na xajul ci suñu biir en tant que citoyen yoo xam ne ñëpp ñoo bokk ndey ak baay ñi sant Jóob ñi sant Jaañ ñi sant Faal ñi sant Sekk ñi sant Ñing ñi sant Gomis ñooñu ñëpp ñoo bokk benn maam ndax bu ñuy càllala di càllala bala ñuy sori boo moytu ñu laxasoo kon am na lu xajul ci suñu biir mooy jëflante yu ñaaw waaye rawatina waxante lu ñaaw ndax loo wax nit tey mën naa daw ñaari at ñetti at kers dana la dal ci situation ndax wax ji nga ko waxoon kon nañu bàyyi xel ci ne politique jarul yenn yi amul nag de tout muy opposition muy pouvoir kenn ku ci ne war ngay seet li ngay génne ci sa gémmiñ di ko jëmee sa moroom loolu ab jullit du ko def waaye gor du ko def ndax ki nga jàkkaar lool ñàkkul am na loo xam ne lii moo leen liie am na foo xam ne fii waroo fa àgg ak moom politique nag yàgg na ci loolu waaye am na foo xam ne toujours rek suñu nite waruñoo may ñu fay àgg di ndokkeel nag euh, Ousmane Sonko rawatina ndax mooy ndeyu mbilli ji di ra ndokkeel waa Pastef di ndokkeel réewum Sénégal mi nga xam ni nag moom coow li coow li ñoom ñoo am ndam yal na leen ndam li jikk di masawu ñi des di leen masawu euh, rawatina nag am na bala ñuy dugg ci xootal waxtaan ay fenkat yoo xam ni ndeysaan ñeme yàlla gi jéggi na dayoo gis naa ci koo xam ni kii moom la xale yi tàmbalee vaar Doudou Coulibaly la tudd mu ngi toog ci plateau boo xam ne bii ndeysaan plateau bu yërëmtalu ndax ña fa daje ñëpp seen gémmiñ di nàcc comme ni ngeen ko xamee woon di wax lu bon rek rawatina nag ay sëtu mu nga naan amiin bi ñu naan ko yàlla bu Pastef gañe mu naan ko Pastef day ñàkk élection yi mu naan ko amiin xam nga loolu lu ko gën a yërëmtalu amul lu ko gën a yërëmtalu amul il faut ngeen xeex ak seen bakkante nangu dogalu suñu borom tabaraka wa su leen neexee ngeen yàlla mooy jox nguur ku ko neex te du ngeen nangu dogal bi nga xam ni moom la dogal wëlbatiku yow nguur googu yàlla jox nit nga koy xajamal te mënta nekk mënta nekk il faut ngeen dalal seen xol yi il faut ngeen nangu li fi nekk loolu suñu borom dogal na ko ba noppi te féete na ginnaaw leneen la ñuy xool suñu avenir aveniru senegal kenn ku ci nekk fa nga nekk lu mu tuuti tuuti tuuti nga xool lan nga mën a jàppalee ñi nekk ci pouvoir bi ngir loolu yomb loolu rek moo ci des waaye xëpp suuf beeg jaxasee gi mën moom amatul njëriñ parce que ñii yàlla teg na leen fi juróomi at te kenn mënul la tee àggale ko ku dul suñu borom tabaraka wa taala kon jéem gee xëpp suuf ak jaxase beeg loolu lépp amul benn njëriñ dégg naa ci kooku moom duma ci taxaw lu bari kuy ñuy wax Matar Jinne mi ngi doon wax naan Sonko mooy jël lépp jël lépp moom ba nga ko waxee rek nga wax waxi dof waaye nag ku xam Matar xam ni waxi mataar rek kooku moom amul importance. lii nag ku mu bett élection yi nii mu tëddee mooy xamuloo dëgg dëgg dëgg nag mbirum politique ñun nag taxul ñu jàng ko taxul ñu gëstu ko waaye xam àddina. gis nga pouvoir ki ciy soog a agsi rawatina nga ñëw indi cinquante quatre pour cent kooku mënuloo perdre ay élections c'est pas possible mënul nekk mënul nekk ñoom bu ñu perdroon élection yi dañuy démissionner kon parce que dañuy xam ni peuple bi kon désavoué na leen kon mënuñu woon a perdre élection yi loolu mënutoon a nekk leneen lañ doon xalaat Ousmane Sonko mënoon na bañ a campagne wallaay di perdre temps am ak énergie mag xaalisam jaru ko woon xëy na dafa doon nammantikoog ay militant di nammantikoog réew mi wàcc jaxa jaxasoog nit ñi dugg fii dem fii xëy na loolu moo ko taxoon de man ci sama xalaat laa wax waaye mënoon na bañ a campagne parce que opposition bi ñoom ñoom déjà amuñu woon lu ñu indi waxoon naa leen ko fi jaaduwul woon sax ñuy taxaw askan wi di leen may ñuy génn di wax dara luy génn ci seen gémmiñ opposition bi yëpp réuni kenn ku ci ne amoo loo wax askan wi lan lan ngeen di wax askan wi bu ngeen jàkkaarloog ñoom li ngeen doon wax yëpp yabeel weesuwu ko moo tax mu jëw ñu lu dul ay saaga ak i tuumaalate ak waxante parce que loolu du argument amuleen lu ngeen di wax ndax lu yàqu ci réew mi yéena te dara jagagul lu yàqu ci réew mi yéen a te dara jagagul kon amuleen droit yéen di yëkkati seen wala ak di diggee kon dañ leen a waroon a jëlal ay yet waaye jëluñu yet nit ñi jëluñu yet campagne électorale bi ku ko xool xam ni nit ñi bastonné nañ leen te agguñ ci parce que euh, euh, loolu xale yi di wax toju leen fenn dëgg yàlla toju leen fenn ku xool côté mobilisation xam ni euh, dëgg yàlla doxul ni mu war a doxee ci seen wàll yéen même xale yi doon topp ci yéen sax di di ndiiraan xale yi sax toppuñu ci en tout cas moom Louga gii moom doy na ci firnde am na nag feneen ak feneen ak feneen xaalis sax ñi ko daan séddale gisatuñu kenn parce que nit ñi yooyu safatu leen mën ngaa jënd nit koo xam ni kii tekkiwul dara mais am na ñoo xam ni kenn mënu leen a jënd saa yu àggee ba la nga doon joxe jeex nag ña nga doon jënd dañuy daw ña nga jëndul woon ñoom kon li leen dese fi ñu toll nii tembe tembe nag mooy jox nañu nguur gi Bachir Diomaye Ousmane Sonko la wóolu jox def na ko premier ministre créé nañ seen gouvernement dem nañu élection li ci des mooy lan sa wite tëri ngeen baal ñu wax ji parce que doon lañ ko mën a waxee dafa guddi sawi te tëri te ngeen bàyyi nag opposition saaga ak xaste ak tuumaalante ak sosalante fokk ngeen bàyyi boobu aussi faw ngeen bàyyi ko citoyen ngeen à part entière bokk ci réew mi sañ a gis lu jaaduwul ngeen dénoncé ko ca kaw a kaw kaw waaye na fekk ngeen gis lu jara dénoncé te bu ngeen koy dénoncé na ngeen ko dénoncé dans les règles de l'art di wax nu mu ko ni mu jekke ni mu rafete ni mu jekke ni mu rafete man loolu laa gëm loolu laa gëm mu des nag ñi nga xam ne ñoom la yàlla dogal mbir mi nekk ci seen loxo de grâce ñu ngi leen koy ñaan daanaka dañuy sukk suñuy ñaari oom tàllal ñaari loxo ni leen bu leen def ni Ablaye Wade defoon lay Wade dañu ko fal plébiscité ko Sénégal yëpp jël buum yeew ci seen baat ñi nos ci seen bakkan ñu jox ko jébbal ko yëkkati assemblée nationale voteel ko ko jox ko majorité ku tudd Ablaye Wade ñu ne bàyyi leen paa bi mu liggéey nekk ci bàyyi leen paa bi mu liggéey bàyyi ba mujj moom itam mu réer ca biir mbir ya kon bu leen góor góorgóorlu leen bu bu leen loolu daal lépp mu ngi ci seen loxo tey jii te xam ngeen xel ne askan wi yéen dong la ñuy xaar yéen dong la ñuy déglu parce que fañ jugee dafa sori te metti réew mi jàllaañoo ci wet gu ne jafe-jafe yi foo laal fa nga ma nga fa te lépp fi ngeen ko fekk te kenn gënu leen ko xam nag parce que jafe-jafe yooyu moo taxoon ngeen di xeex yéen askan wi ànd ak yéen man lu ma xam ci lu jafe ci réew mi Bassirou Diomaye ma ko gën a xam lu ma xam ci lu yàqu ci réew mi Bassirou Diomaye ak Sonko ñoo ma ko gën a xam kon ñoom soxlawul sax ma leen di joxoñ baaraam walla ma leen di wax xam ngeen bu baax ni reddition des comptes révision reddition des comptes bokk na ci li askan wi di xaar ci yéen ñi nga xam ni ñoo sàccoon alalu réew mi luubal ko jaarale ko fu mu war te jaar lu ñu war a lijjanti la yoon war naa amaat doole ju gën a bari ji nga xam ni moom la amoon parce que dañoo dem ba mujj ñu suqi ko na ginaar goo xam ni gi yoratu la laaf yoratu li donc ñu ngi leen di xaar tamit ci train de vie de l'État mooy nguur ni muy doxe charge am yi dafa bari loolu nag assemblée nationale moo leen ko mënoon a may may na leen ko parce que dañu war a wàññi salaire yi fexe ba uniformiser ko askan wi gis ci seen bopp wàññi salaire googu dana mën a dugg ca subvention ya ak yeneen ak yeneen état yéen ma gën a xam nu muy doxee institution yi ñu supprimer ak yeneen ak yeneen ñu fexe ba yooyu institution bañ fi dellu seeti parce que amul njëriñ yéen a ko gën a xam li tax ngeen supprimer ko xam ngeen ko xam ni tamit réew mi dund gi cher na jafe na la ngeen wàññi woon kenn du ne amul njëriñ ndax boo ko dajalee ci lu bare mën na am fu mu feeñ waaye nag wax dëgg yàlla impacté gul man Momar Diagne ci sama dund man wax dëgg yàlla impact bu ñuy wax dëgg-dëgg yëgaguma ko ci kon ñu ngi leen ciy xaar ci wet googu te loolu it lii leen ko mën a may ñu ngi leen xaar tamit ci discipline citoyen yi nit ñi dellu def ay nit yaru ñu voté loi yi wala boog ñu consolider loi yi fi nekkoon nit ñi ñu teg leen ci yoon discipline am ci réew mi alkaati yi di doxal seen liggéey normalement gendarme yi di doxal seen liggéey normalement douanier yi doxal seen liggéey normalement képp koo xam ne ndawal buur nga nga taxaw ba askan wi nekk ay nit te bàyyi comportement yi nga xam ne moom la ñu am ci mbedd mi ak yeneen i doléance waaye yii ñooy priorité yi kon ñu ngi leen ciy xaar am yaakaar te di leen ñaanal suñu borom tabaraka wa taala mi am kàttan ak sañ-sañ ak mën-mën yal leen ko yombalal ba ngeen mën a def seen mission bi ni ngeen ko bëgg a defee muy ngëneelu askanu senegal di ngëneelu àddina it nag ndax day law di dem day law di dem ko defee ñu yemale kàddu yi fii ba beneen asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.